تعالى وبركاته بوكي جلدي بوكي طالبي رواتنا بوكي طالبي نجاس من النيو بعد نسيارة دفع ملوم بوكي ليرا رك تي خيو خيو بيغا خاني مو خيوون جيرس muy xew-xew bu rëy ci man ndax xew-xewu yoon yoon wi la li ci am solo nag dama bëgg gën a leeral li li li ko andi li ko andi moo doon dafa am ñu ñëwoon fi man jaaxle lool ci diggante bi nga xam ne Cees toll na ko ma ne leen loolu yëfi mbooloo la ngeen dellu gëstu mbooloo mi gëstu taalibe yi bu fekkente ne gis ngeen ku leen doy ngeen des si wax ma ko ma joxe ndigal loolu biñ ñu amee ab diir ma yónni sëriñ sëriñ Moustapha mii mu sëriñ Abdou Lakram ne ko demal ma ca mbooloo ma laajal ma leen ba xam la ma leen waxoon def nañ ko la déet ndax am nañ ko leen doy wala amuñu ko loolu rek moo taxoon ما جو سيني مسلمين ديجل يونيكو نكو دما لاجل من بولا ملولو بول لولو امينك خاو خاو بفا ام ام فا كون منو ما خم لا ورل لو مودون ما خم لا ورل خاو خاو با لا ورل لو مودون لا فا خاو bu bu xewee doo xam lan moo ko waral loolu nag mu doon nekk nekk tooñ gu rëy tooñ sëñ Moustapha buñ tooñee sëñ Moustapha tooñu ñu ko man lañ tooñ man it nekkuma buñ ma tooñee sëriñ bi lañ toon noonu rek la mbir mi demee tooñ gu metti la ci man ndax noonu rek la demee eh, nañu def sëñ Moustapha eh, toroxal ko ci digg adduna dañ ko yéen cee def yëpp ñu def ñu def ko ko loola mbir mu réy la ci man. ci liggéeyal sëñ Tuubaa rek laa nekkoon kon bu ci loolu rek borom yoon bi rek lañ tooñ. ñun ay taalibe lañ doon yoo xam ne dañu doon jéem bëggoon a nekk ci leen war a nekk rek nekk ci liggéey bi ci biir ak ci biti eh, la cee de des rek moo di lu nanu nanu doon lay gën a góorgóorlu ci lu demee noonu ak ci mboolem yoon bi ñun ñëpp nanu gën a góorgóorlu ci wattandiku yu demee noonu def loo xam ne boo ko defee ba noppi mu nekk tooñ gu rëy te woo ko fenn tegoo ko fen loolu ñun ñëpp maa ngi maa ngi maa ngi ñaan tàmmale ko sama bopp ñun ñëpp nañ wattandiku ku demee noonu ëllëg si biir lu mu ci mën a doon lépp mën naa nekk mën naa mën nañ koo dox ci taalu bi ci yar teggin ci waxtaan ci diisoo ba leen ci bëgg ci defar nu am ca tawfeex amee ko nañ ko bëggee loolu lu mën a nekk la bu nu teeyee rek te te nekk ci leen war a nekk wax lan war a wax da def lan war a def bu nu ko defee rek lu ñuy lu defar mën nañ ca am taw tawféex ba lépp defaru nu amee ko nañ ko bëggee. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw xew-xew yooyu nga xam ne moo amoon ci Thiès ci kanamu Serigne Moustapha Mbacke Lakram mi nga xam ne. cheikh Mouhamadul Mountakha mbake moko fa yabalon te ñenn ci ay taalibe jëfé fa jëfin go xamné andut ak taalibe te tegginewul ci kàddu yi nga xamné ne sëriñ bi doon nako yëkëti ci turu khalife général des mourid kon sëriñ Moustapha mbake Lakram def na déclaration momit doon yëkëti ay kaddu di jéggal bépp talibé bo xamné amna no ci taxawé ak it bépp taalibe ci lo xamanteni war ko wona wax. kon ñu and kàddu yi Serigne Moustapha Mbacke la karam. salaamaaleykum wa rahmatulahi mbokki jullit mbokki taalib yi mbokki yoonu murit wépp mbokki uma islaami bépp mbokki àdduna bi maa ngi jégglu tey jéggale looloo tax ma jiital alhamdulilahi rabbil alamin dafa fekk ne waxtu wi démb maa ngi Cees teewaloon fa sëriñ bi ak Cheikh Mamadou Bassir mi suma wet ndax moo yore kàddu gi te nekku fi ma teeyu woon jotali kàddu gi ma sëriñ bi yónni woon ba la ma ca fekk fekk ma ca la ma ca fekk nag eh, mënoon naa ku ma xam-xam ne mën na maa fajal sama bopp lu ne ci wàllu àdduna waaye nag sama bopp sëñ Touba dama ko gënal te bëgguma sëriñ bi am benn fitna ci xolam ak ci xelam wala ci sama jëmm ak fi mu ma teg moo waral ginnaaw bi mu waxee ci biir ba noppi la mu wax ma ànd ak Cheikh Mamadou Basir jéggal mboolem koo xam ne daloon na ci sama kaw wala mu xëpp ma suuf wala mu mu dóor may doj wala fitna ja ci am yépp jéggale naa ko ngir jëmmi sëñ Touba Cheikh Mamadou Mountakha waaw na mu julli na ko ñëpp xam képp ko aju ci man ba mu jéem a fayantoo ni ko sëñ bi afawtu andil ax daay turan jooju rek nañ nañ koy nañ ko nañ nañ ko wéyal ngir jëmmi yàlla rek waaw nga xam ne loolu daal sëriñ bi moom laa bëggoon a wax di la ko seereel di ko seereel mboolem bokki taalibe bi fi toog xam ne eh, jéggale naa ci nit la rek ko xamne ku soxla ngeegal la waye motax ma jéggale ngir jëmi Seex muntaha Muntaxa alaykum wa rahmatullah